mbokki téléspectateur u Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen yaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag ñu ngi jàmm gën fan yéen a gis ay image ci Siteu yaa ngi dégg ngir lan ngir mbënd mi yàlla ji mooy taw te bu tawee am na ñoo xam ne seen dëkkuwaay yi ndox mi da koy nangu rawatina jàmm gën gii nga xam ne fi la ñu nekk tey nag ñu ñëw fi fekk si fi Siteu muy ay actes yoo xam ne am na solo depuis semaine passée la ko commencé woon ah ba samedi bi dellu siwaat bàyyiwul mu ngi jël ay moyens yi mu am ak ñi nga xam ne nii ay bon volonté lañ xëy na ak ay xaritam sax laay wax ñu di ko jàppale ngir ñuy dimbali doomu aadama yi rawatina fi mu dëkk muy jàmm gën parce que lii boo ko xoolee nga xam ne kon sa veut dire moom moo lay wan ne tamit hélas lii liñ ci war a jàngate mooy nit ki du da ngay siiw wala nga nekk star rek daw sa waa koñ mais c'est daa mel ni defut loolu dund ko parce que boo ñëwee ci koñ bi nga koy fekk li jafe lii ay jafe-jafe ci bi mu ngi koy dund waa koñ bi loolu moo lay wan loolu moo waral tey moto pompe yii te lii dafa baax ñu di ko wane ndax lii nag dama yaakaar naa ñi naan ay meer lañu maire ah xam ne ñoom ñooy les hommes deta ñi nga xam ne ñoom yore moo xam ministre ab maire la ak yu mel noonu doñ ko doon séntu ci ñoom mbëri làmb yi sax am nañu leen doon xoole waaye defe naa ne mbari làmb yi ay royukaay lañ comme li may wax chaque jour que jëfee rek mbëri ay royukaay lañ te lii seen ci sast yi nga xam moo lay wan ne nit boo nekkee ci daar dunya del def lu tax ñu lay roy la ca gën nag mooy lu baax te lii lu baax la kii kiloot ngay gis mu sol sol ay tik-tikem moo lay wan ne kon moom mbënd mi mu ngi koy bokk ak waa koñ bi yaa ngi dégg gaa yaa ngi ni taxaw ñoom caatu fora ñoom Abdou Serif ak magam grand frère yaa ngi dégg lii di lu ama am solo di lu ñu war a wane waaye lii moo lay wan ne ab gox boo ci bokkee du fii laa juddoo ban ci kan la war a ko am nga jaam. maa lii daa mel ni sast bu rafet la sa rakk di ko def ci population bi nga xam ne wala ci askan woo xam ne fii la dëkk. màggee fi mën mi ñëw sonal leen mu jël alalam di ko bokk ak ñoom. dëgg la si te lii lii si nit ñi xama li mu def ni image bu rafet la ko ndax instant yi jaamu ngeen sonal ñi ñuy sonal mooy ndox. te wax dëgg yàlla lii la mën lii la mën lii leen mën a dimbali c'est-à-dire nitu social la lii moo lay won ni nitu social la te léppam nag yemalu ko Diamaguène génn na Diamaguène Pikine ginnaaw raay kenn bay faal foofu yëpp war nañ faa yóbbu ay pompe fu ne nañ faa yóbbu ay. mbir mi yemul Diamaguène. yemul Diamaguène kese mbir mi dañ koo yaatal quoi. Ah, boobaak tey limu masin yi ngeen génne ci ñaata machine la war a. non boobaak tey def naa li mooy deux machines. 32 moto pompe. 32 moto pompe yoo xam ne yii 15 15 la quoi njëkkoon na indi yeneen 16 pompe yooyu joxe nañ ko te saa yii moom daanaka ay. ay pompe yu mag la quoi ñu mu te ay pompe yu mag la li ma lay ni moom loolu. maa ngi lay ziar. maa lay delloo lii seen xarit seen doomu ndey mu ngi bokk population bi rawatina sénégalais yi jafe-jafe bi ñuy dund muy problème mu mënd mi ci taw bi mhm. lii yéen ñi nga xam ne yéen ci keppaaram di ànd ak moom guddeeg bëccëg. nu ngeen ak ban message ngeen di lancer ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite. waaw lii moom boo gisee lii nga xam ne image bu garaaw la parce que ñun banlieue lañ dëkk banlieue lañ juddoo banlieue lañ yore ñun bañ juddoo ba léegi ñu ngi gis mbënd mi di ko dund mosuñ gis kuñ jàppale. Eh, même bu amee ay jàppale sax maanaam taw bi bu ñëwee day ànd ak doole joo xamante ne dara mënu ci dara ñun mooy li ñu waxoon keroog rek. solution totale lañ bëgg mooy ñu gasal ñu kanaal bi ibil ñu ko muy dem géej direct gis nañ ne loolu mënta nekk dëkk bi yëpp si Siteu génn ak nu boppam ak moyenu ñu koy jàppale ñu may ko ay machine machines yi ngay gis nii benn bu nekk six cent cinquante mille lay jar barki Alxuraan wala cinq cent cinquante mille ku ko gis xam na li may wax li jënd ci quinze machines kon loolu xam nga ne branloo dëgg moo ko mën yee di wax tamit population jaamu gën bi gis nañ lépp di wax Siteu tamit dañ koy ñaanal parce que li mu def defalu ma ko man kese defalu ko boppam kese ñun ñëpp la ko defal ndax ñoo bokk ci dëkk bi soo ŋàccul sa xaritu yaay ŋàcc sa mbokk yaay ŋàcc lii nii yëpp geste bu rafet dañ koy saluer bu baax di ko ñaanal li mu bëgg borom bi defal ko ko di wax li yëpp pour waa jaamu ga la nañ ci ñëpp jàpp ñun ñoo bokk lépp billaay parce que naa mul solo quoi. kooku mooy caatu fora hmm? gis nga gaay a ngi di yëkkati machine yi pour fas goy teg ci kaw saret yóbbu ko hélas siyaare naa la Babacar di sant di wax ne jërëjëfe borom Touba comme ni ma koy waxee chaque jour ñu nañu xool fi nga xamante ne foofu la ñu war a yóbbu machine yi ndax parce que machine machine yi mag la ñu xool gox yi nga xamante ne ñoom ñoo ko gën a yitewoo ñoo ko gën a soxla ñu yóbbu ko foofu parce que am na endroit yoo xam ne boo ko fa yóbbee te machine bi bu fa taaxee même pas 30 minutes amul ndox bu mun a dégagé amul sens yee comme joxe woon nañ pompe yu ndawe yi yu mag la soxla ñu jox leen ko man li may laajte mooy Siteu bu nga xam ne buñ ko déggee muy wax di dagaase loo xam ne maanaam day défendre population bi mu mel ni wax jooju yemale ko ci kese ci sa làmmiñ mais da ko boole ak jëf parce que jëf ji la preuve mooy lii ça veut dire que dan jël nañ la fi interview wax nga ci Equivox wax nga ci Lutte TV kaasal jeunesse bi kaasal ndaw ñi kaas seen liggéey kaas seen i jafe-jafe tey jafe-jafe yooyu am nga xaalis ak ñu lay jàppale jël ay moyens muy alal ju bari nga def ko di jàppale nit ñi mu mel ni Siteu la muy wax moom la jëf bu jëf jotee. waaw li ngay firndeel mooy lii maanaam lii moo gën a tuuti li war a feeñ li war a lii du dara lii lu war la rek ñu koy def te xaaruñu dara parce que suñu wareef la parce que ñu ñoo koy dund muy jafe-jafe yooyu te mu moment bi ñu nekk lu ñu waay jàppalee lu ñu waay jàppalee lu dafa mel ni jàppale si dara pompe par hasard rek la ñëwee waaw xalin moom ko indil Baye Fall bi waaw du koy sant moom ak xaritam waaw maa ngi koy bëggee waaw gis nga dafa am loo xamante ne lu jóge ci xol ci xol rek lay dem waaw nit li ngay def danga koy def rek commencement mais xam nga fu muy yem waaw te ñun ay taalibe lañ nekk ay taalibe taalibe nag boo ko doonee maanaam boo gëmee ne dara jomb la dul sëriñ bi rek doo sonn waaw gëm-gëm boobu lañ am man sama mébét mooy lii moo gën a tuuti lu ñu war a def social wallaahi waaw. kon su ma la lii tey boo ko xaymaa ci wàllu xaalis parce que moto pompe yi ku ne xam na ne seer na ñaata moto pompe nga génneegu et puis boo ko doon estimé ñaata la. non bari na moto pompe yi boo ko doon jëndee. di nga ko jëndee 500000 wala lu jëm kaw te tey instant bi ñoo ngi si am lu ay 15 yoo xamante ne yu mag la daanaka 10 yu mag ak yoo xamante ne 5 yoo xamante ne ñoo gën a moyen. comprendre nga mais sant yàlla loolu laay wax di wax ne. am na ñu la ciy fekk si la si jàppale wala. defuma ci sama dërëm nag pour nga xam ko du man mais jaamu yàlla yoo xam ne bëgguñu ni ñi gis leen ñoom ñoo ko def man geste bi rek la. moo tax man li ma ciy gëm bi ma ci am képp ku koy ku koy def Baay Faal bi mooy taal. waaw waaw moom mooy taal machine yëpp te te yàlla rek tax mu moo tax mu koy def. mais li ma ciy wax mooy ak dégluwaay wax mooy lii nii Siteu defu ji dërëmam man defu ma ci sama dërëm na leer mais dama koy wax képp kuy def rek na nga jënd matériel yóndee ma ko waaw képp ku koy def wala képp ku koy yéene Siteu na nga jënd matériel bi yóndee ma ko bañ laa jox xaalis dee soxlawuma xaalis bi parce que xaalis mënul def dara mënul def dara parce que instant bii nii ku ñëw jël siwa tëbbal ñu ndox mi sànni ñu ko rek ñun mel na ni defal nga ñu ay milliards waaw di sant àdduna nag waaw yéen amuñu seen fay yéen parce que ñun lépp lu ñuy def bu ñu leen woowee wallaay woowuma ci kenn mais xaw ma kan moo leen woo mais da ngeen bàyyi seen lépp ñëw kon amuñu seen fay yéen journalistes leen ñaanal ñu dem ba ci kanam quoi ñu ànd liggéeyandoor xool ngeen xool lu ñuy def waaw zone yi bëgg nañ dem sam li maam jaar armeer surtout armeer yi nga xamante foofu lañ denc suñu waajur yi. armeer daa inondé. dafa inondé dafa inondé boo mënoo fa dugg mënuñu fa denc néew. ba pare ñun suñu armeer dafa fees fees boo xamante ne doy na waar te bëgg nañ ñëpp jàpp si ay caare asir foofu yëpp bëgg nañ fa yóbbu. pompe yi pour ndox kese la te fépp fu ndox nekk instant bii nii am na ñoo xamee waa Kër Massar am na ñu ñu jox benn pompe. jox nañ leen pompe parce que imam bi ak délégué bi ñoom ñoo fi ñëw xam naa si kanam tuuti nañ leen présente ngeen gis leen waaw ñoom dañoo am problème ndox seen jumaa ji mënuñu julli seen lépp ñu def dara seen kër yi mënuñu fa fanaan ñu teg seen añ pourquoi pas ñu jël ay pomp yóbbu ko foofu loolu kese la. kon daal Siteu combat bu ñu ko déggee jàmm ngeen kese pour inondation jeex ci banlieue bi ci banlieue bi waaw. waa ci banlieue bi laa dëkk man amul jàmm jàmm gën laa tàmbale jàmm gën mooy sama base. mais damay ñaan yàlla dugg gox yëpp. machine yi fu ñu dem dégager ndox mi dañ ko fay jël yóbbaal ko ci yeneen gox yi nga xam ne ñoo ko yitewoo waaw pour ñu pour loolu kese la. meeru jàmm gën est-ce que bi ngay bi ngay taxawee di def geste yu nii ñëw na sutenir la. meeru jàmm gën nag ñëwul soutenir ma mais déggante naa ak moom commencement mu xamal ma ne moom ma ngi ci. waaw te ñun dañoo bëggoon a ñun nekk de benn say rek àndandoor liggéey parce que liggéey bi dafa des waxuñu ne liggéeyul nit boo koy wax da nga koy waxal li man maire jàmm fal ñun nañ ñi nga xamante man maa ko campagne al jour ba mu laa mos dem këram jour laa gij këram yaa ngi dégg te bi may gij këram dama ko xamal carrément jour bi mu toogee daa ko ne ñun jàppale wuñ la pour pour nga defar dëkk bi mais boobu léegi dëkk lu bari loolu nag responsabilité la parce que moom moo jël suñu njiit nangoo nekk suñu kilifa donte état moo ko war a jàppale mu def ko mais moom moo war a teg tànkam si loolu di koy kaas di koy waxee di kay jëfee bu yàggee ñu defar gox bi dégg nga ñun xëccuwuñu dara mais fii ku ñu nekkal ñu nekkal la ku ñu jàppale ñu jàppale la te il est temps mu jot ku ñuy fal ñu xam la ku fiy dugg ak loo fi mun a def ak loo soxla si ñun ñu xam ne am nga ñu njëriñ wala amaloo ñu njëriñ seen moo sa moroomu mbër yi nga xam ne ñoom ñooy seen association. est-ce que ñun tam yaa ngi jokkoo ak ñoom pour que ñu jàppale la ci lu mel nii wala. non non jokkoowuma kenn fa yàlla mais maa ngi leen di remercier di leen yëg du question dama leen xeeb ma leen mais il est temps ñoom ñëpp ñu jog ñu nekkal seen bopp xam nga boo nekkalee sa gox bi nekkaloo kenn sa bopp nga nekkal ndax parce que boo xeebee ñëpp ñëw man benn fan rek bu ma wootoon àdduna yëpp daje parce que maa dundoo ak ñoom. et puis lu tax Siteu maanaam comme ni ñu ko xamee des fois dañuy gis ñu siiw wala star wala nangam bu de toll ci benn moment bi taamu dem uti beneen endroit dëkki fa moom choisir rek reste jàmm gën dëkk fii di dund ak ñoom lépp muy naqar muy bànneex lu tax nga soi nga def boobu boobu soi parce que yàlla moo ma natoo lool aw ma fudul jàmm gën sama xol boo ci xale jàmm gën mënu maa xëy journée waxtaan te waxtaanu ma jàmm kon lii la ma yàlla jox maa ngi sant waaw ñii ñoo jógee Kër Massar boo leen xoolee ñu leen boo leen demee jël leen dinañ peut-être dinañ am lu ñu la wax loo xamante ne lu concret la nañ jóg te xam ne Siteu moomu ko Siteu moomul geste bi Siteu njëkkeewu ko inondation yàgg na fi am peut-être nit jàpp ci def ci alalam def ci dooleem peut-être nit ñi yëg ko wala bañ koy yëg mais xëy na yàlla dafa def tey xëy na nit ñëpp Siteu lañ gis mais ñoom sita moomul loolu Siteu defu ko nañ jóg jàppale gox bi dañ jóg jógal seen bopp ndax que bu ñu jàppee seen bopp lañ jàppal ah. bu ngeen ñu waa gox bee jàppale waaw boo xewlee ngay bëgg am ay supporters bëgg nit ñi teewal la kon da ngay teewal nit ñi waaw góor jàpp ci góor ba góor yéeg fa mu jëm. mu mel ni ba tey comme ni ñu koy waxee rek euh, dëgg day tungam seede ma ah, comme ni mu ko waxee sànq defe naa ne ñii ci gox la jóge jógee. Mhm. ñëw fekk si Siteu ngir lan seenu koñ tamit am ay jafe-jafe sëñ bi tur bi. Emmanuel Kabou. Emmanuel Kabou. Emmanuel Voilà. Okay. Délégué quartier UCAD 1 et 2 université université Cheikh Anta Diop. waaw suñu benn dëkkandoor bu baax nag moo ñu booleeg Siteu mii waaye il est impressionnant ci yar waaw il est impressionnant ci yar lim ñu won vraiment man de vraiment ni ma ko daan gisee effet bi mu daan def ci man loolu la moo won tey tey nii nii maa ngi wala doog am chance na gis ko nii waaye xam nga di nga gis nit moom am effet bu muy def ci yooyu kooku yàllaa koy def waaw dafa ñu lewet ñooñu am yar loolu laa gisoon ci moom te moom la ñu won nii waaw. seeni tànk fii lan la woon. suñu dëkkandoor boobu daf euh, daf ñu booleek moom pour mu jàppale ñu ci pompe yi parce que fi ñu toll nii mën euh, inondation yi dañu sonal trop sama délégué de quartier adjoint bii fi ñu toll nii dafa perte sax këram ndax inondation ñi ci des aussi ndox mi laal laal na leen kooku xool ñoo dëkk fële moom sax amul yooyu problème mais mu yërëm ñu rek boole ñu ak Siteu te lim ñu waxoon yëpp gis nañ ko ci moom li li mu lim ñu li ñu dëkkandoor bi wax yëpp gis nañ ko ci Siteu mii man mii personnellement ni ma ko daan gisee ci tele parce que xam nga vedette yi moo xam ci euh, sport la ci leneen ci télé la ñu faral di leen di gis ak yooyu alors nit ki di nga ko gis xamoo ko sax mais tout boo xoolee moom effet bu mu def ci yow effet boobu mu daan def ci man di ko def ci ñii ñëpp seede nañ loolu moom laa gisaat nii bi ma toogee ak moom di ko ñaanal yàlla nag. waaw lépp lu muy kii mu doon lu ko jëkk nag yàlla defal ko ko. yow yaay imaamu quartier bi Emmanuel wax léegi. UCAD waaw moom la ma yàlla nattoo euh, ñu jógee fële ci cité UCAD euh, Kër Massar. ànd ak sunu kilifa yi délégué de quartier ak adjoint ak sunu kenn si notable yi ak kenn si ñi nga xam ne ay dëkkandoo yi am taxawaay bu rafet ci ci koñ bi euh, comme ni ko sunu chef de quartier waxee euh, ñun ñëpp tey seede nañ seede yu rafet ci ki nga xam ne mooy Siteu ci acte bu rafet bi mu def muy acte bu noble muy acte boo xam ne day dugg ci cadre euh, yërmande ak dimbalante te muy slogan boo xam ni réew moom lañ soxla pour mën a développer wax dëgg yàlla lii mu def wane na ko ndax bu ko neexoon euh, danaan sama gox kese lay dimbali. waaye yë xolu yërmaande bi muy wootee ak njàppalante bi euh, weesaara na ko ba nga xam ne ñun cité yi gën a sori sax tey jii jot nañ sunu sunu sunu sunu moto pompe euh, ñu koy ñaanal di ko santi ko gërëm ñaan yàlla mu sàmm ko aar ko ba li muy mbébét ci population ak dëkkandoom Euh, yàlla mën ko ko mën ko mën ko sottal. en tant que imam dinaa la laaj parce que defe naa ne yàlla am na lu mu wax ci doomu aadama juy dimbali moroomu doomu aadamaam tey loolu loo ci mën a wax en tant que parce que bu ñu nee imam mooy kii jiite jàkka ji jiite julli yi di tudd doom yi ak tamit bu safaan amee itam mooy taxawe taxawaay yu yëpp. waaw diine moom naka jekk dafa mës gërëm dafa mës santaane dimbalante. Eh, sunu borom tabaraka taala wax na ko ci alquran taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ithmi wal udwan sunu borom daf ñu mës a ñaax dañuy dimbalante ci mbaax ci yiw ak ci ragal yàlla ñu bañ di dimbalante ci safaan kon loolu képp koo xam ni dégg nga kàddu boobu di nga xam ni dimbali sa mbokk jullit waxuma la yool ak tuyaa bi ci nekk nga xam yonent saa sa wax na ni képp koy taxaw ci aajo sa mbokk jullit yàlla dina taxaw di faj say ajo kon euh, faj aajo jullit ñi doy na gàllaat doy na ñaan ci boo xamee njëriñ ak yiw yi nga xam ne moom moo ci nekk ñoo xam ne dimbalante mooy mooy yor réew euh, suñu borom yàgg nañu wax ñi si suuf nañuy dimbalante ki ci kaw yërëm leen yërëm leen ñi ci suuf ki ci kaw yërëm leen kon dimbalante boobu ak jàppalante bi ak euh, taxawu say mbokk jullit ci kaw bu ñu soxlaa ndimbal ci kaw benn ngistal ci kaw benn rëy ci kaw jafe-jafe mais ànd ak suufee ànd ak woyof ànd ak laabiir ànd ak yar tey jii teraanga bu ñu defal mooy ñu ñëw moom mi ñu dimbali toog ci suuf ak ñim àndal ama loolu geste bu bu bu bu yéeme la yow mi ñuy dimbali di nga di nga mën a nangu ndimbal ji lépp lu mën a sant loo mën a def te day woyof ngir nga def ko waaye euh, bu doon beneen côté bi loolu du du lu lu kii. Euh, kon ñu ngi sant yàlla bu baax ci Siteu di ko ñaanal di ko gërëm ci taxawaay bi ak ci acte yi ak li mu yéene askan bi yenn yàlla dimbale ko jàppal ko ngir loolu mu mën a mën a sotti. mu mel ni mu mel ni dinaa la fi may jaxle ak yow mooy Kër ma saar ak yeneen quartier yi sonn nañ mais Kër ma saar gis nañ que ministre de l'intérieur ñëw na fa mel ni chaque année ñu ñëw fa plan or chaque chaque année mu am te ba tey bu taw amee ndox mi ñëwaat sonalaat ñi génne leen seen ay kër tey état lu ngeen leen di wax wala yow loo leen di wax en tant que imam. Euh, état bi li leen di wax mooy li kilifa yi wax rek nañu gestu askan bi ñu dimbali leen taxawu leen xam nañ lan mooy seen i jafe-jafe te tamit euh, ñu bañ di tappale ndax réew naxtaan ak tappale yoru ko dëgg ak yoonal moo moo yorum réew. Euh, plan urgence dëgg la Orsec mais urgence ñi jàng tubaab ñi jàng bu ñuy wax urgence. mooy xam ne bu ñëwee dafa war a kit ne jon saafara bépp tawat waaye urgence boo xam ne à chaque fois day répété wu bu yàggee euh, dootul nduru dootul nduru urgence kon ñi jiite nañu xam ni euh, dañ leen a jiital ngir ñu gestu askan bi taxaw leen ci seen i mbébét ak ci seen seen i jafe-jafe loolu mooy li nga xam ne mën nañ ko sànni ci ci ci ci loolu. di nga faral di seetaan làmb en Euh, ban lutteur la damay bëri. <laughs> Ah, imam day bëri. waaw ah, damay damay bëri ndax euh, sport islam daf ko santaane te luy dundal xol luy dundal société la waaw ah, damay bëri tey jii Siteu dafa mooy waaye sama yéene ci moom mooy ñu am combat <laughs> waaw waaw dama gisul contrat waaye su ma gisoon contrat moom dama koy song moom. kii wax na lu am solo na ndaw nga waaye fooy woo sa ndaw. waaw ah sant leen rek parce amuñu seen fay. waaw amuñu seen fay ndax parce que tey mënoon nañoo am sànq dama ko wax imam bi ma ne ko yàlla mënoon nañoo baddi lii mais duñ ko am niñ ko jox waaw comme yàlla tey ñoom ñoo ñu ko gën a yitewoo kon mënuñu ñëw lu dul fekk si leen parce que ñun suñu bopp lañ koy defal defal ñu leen ko waaw ñun suñu bopp ñoom dañuy dox ay tànk jàmm mais wax naa ko ma ne ko boo leen jóguloon boo ñun dañuy ñëw parce que xam nañ lan moo nekk seen problème te loolu lañ ñaan yàlla continuer ndax parce que affaire bi pour loolu moo tax ñu jox ñu ko waaw di ñaan yàlla bi jóg rek ñu ñëpp ñu jógandoor banlieue bi képp kuy jeune gis ne mun nga def dara yaa ngi dégg parce que moto yi seerul yaa ngi dégg li nga jàpp ne mooy xaalis du xaalis quoi ñun ñëpp bu ñu booloo jiital suñu xol rek mën nañ ko ñu jàppale suñu papa yi jàppale suñu yaay yi mu nekk benn benn benn benn benn mbooloo boo xamante ne bu ñu jàppoo rek peut-être état sax dañuy fekk si yaa ngi dañuy fekk si parce que dinañ def benn benn leneen waaw nañ jóg xool suñu nijaay yi xool suñu papa yi xool suñu imaam yi xool nu ñuy def ñu ànd ak ñoom man de loolu laa xalaat waaw waaw. tey dafa mel ni Sénégal tamit jaxasoo bi nuy wax ci xeet yi wala si diine bi sax parce que kii Emmanuel Kabou tudd kon su église bi moo nekk nii sa ginnaaw sa kër nekk nii mel ni kon réew mi daal te imaam mu bi nga moo taxaw ci côté lislaam bi mel ni kon Sénégal am da Dabakh waxoon rek tàppe xol yi ànd bokk ndey bokk baay mu nu yóbbu fi nu soxla te dafa mel ni yow ci loolu ngay taxaw. ah mais ci loolu la ñu yar parce que boo juddoo am yaay yu baax am ay papa yu baax dëggandoor ak ay waajur yu baax yow ci baax rek nga mun a sant ci nga mun a dëkk waaw ndax parce que boo xoolee gis nga misaal bu mu la jox te moom bi boo xoolee këram amul ndox sànq ñu ngi waxtaan mais ay dëkkandooram yi nga xamante ne dañoo am jafe-jafe sama papa ji sama mbokk séeréer la mais këram amuñu fu ñu fu ñu mën a tegee añ parce que ndox kese moo wër fan nga taalee gaz si biir ndox ah léegi nag loolu nag ñan ñoo ko mën a dindi ñun ñëpp bu ñu booloo ay mag lañ mais ñun ñi nekk jeune ñu ñoo war a jóg xam ne ñun suñu papa yi ba ñuy ba ñuy ganee si àdduna li ñuy indi ñoom yaakaar bi lañ amoon si ñun kon yaakaar boobu ñun ñu nekk jeune waruñu ko tas dañu war a ànd nekk benn yéenante jël suñu xol yi raxas ko raxas xol nag du ay wax kese nañ jógandoo rek waaw boo amul sax ñëwal geste bi rek dafa rafet geste bi rek dafa rafet ndax parce que boo xoolee machine lu muy bari bari waxaat naa la ko sànq dafa ma ci sama dërëm du dërëm bu ma ci def te képp ku ma koy indil laaju ma la xaalis dama laa nga jënd matériel bi indil ma ko dinaa ko yóbbu fi nga xamante ñoom ñoo ko yitewoo waaw ma leen di remercier di remercier Xaline bu baax di remercier Mansour jongo di remercier ñi ma jàppale ñëpp. waaw parce que aw ma seen fay waaw maa ngi remercier ñëpp waaw jërëjëf loolu laay wax waaw.